wahab lana makarimal akhlaqi ma tahabubin bila sikhaqi wajal saqirana yuwaqinul kabir wajal kabirana yughiru lisaqir wajal khulubana ala tawaddudi bila tanazu'in wala tahasudi ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباحث ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين والمؤمنين مخلصين سالقين واغفر لنا وحافنا بخافيا تكون في الدارين خير خافيا واغفر لنا وغافنا بخافيا تكون في الدارين خير عافيا واحمي وقد وكفنا عن مظلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا حسن القتال عند مماتي وخدا يوم الخيام بجاه خير من صفا أم الأمراض ووهب المرحوب والأعراض محمد طبيبنا الهمام مبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآلي مع صحاب الكرما ما أفلح المسخول بالدعاء وعوفي المريض باستشفائي وللنزيم أيضا zadullahu shifaa wa fayda ya man yarumu dafa kulli da'i wala tufarih man labas shifai ya man yarumu dafa kulli da'i wala tufarih man labas shifai wa dum alayhi fil masa'i was wa axlisi tanal sifaa wal falah bi izni rabbina wa jaayil mustafa salla alayhi rabbuna kama stafa a'uuzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke Cheikh Mamadou Fadil mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi sant yàlla di julli ci sangu sang sayyidina muhammad di gërëm Cheikh Ahmadou Bamba yaakaar jaam teeg ëllëg di ki kaddu ci turu Alaaji Mamadou Lamine Baara moom Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadel ci bis boo xam ne da koy def di le 22 ak le 23 décembre fi ci Thiès ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Amadou Bachir moom Serigne Touba Khadim Rasoul waaye tamit ci ndigalul Serigne Amdi Modou Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima Fall nekkal fi mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp waaye tamit ci ndigalu Cheikh Cheikh Abo Barak moom Cheikh Modou Fadil jiite mbooleem njabootu suñ Fallu gépp ak ay rakkam waaye tamit ci ndigalu waajuram bu tedd bi Cheikh Abdoulaye Karim Mbacke borom makaarimul axlaax jëmm ji nga xam ne moom kat moo yëkkati genn kaddu wax ne sama yitte gépp sama bëgg-bëgg yëpp sama yéene yëpp mooy yeesal sunna su Muhammadu Rasulullahi waaye jaara ko ci makaarimul axlaax gi nga xam ne moom la Serigne Touba Mbacke tuddoon ca xasida ga nga xam ne mooy matlabu sifaa yi loolu mooy bëgg-bëgg Serigne Abdou Karim waaye doom ji nga xam ne su borom dogal na muy alaaji mu leen baara juddoo fi Cees màgge Cees yoro Cees xàmmee Cees léppam di Cees mu dellusiwaat tey ñibbisiwaat Cees fa siini fee defee bis bi ànd kook njabootu wajur gépp wajurum gépp di ci jiital baax a baax mbooleem njaboot Serigne Abdou Karim Mbacke gépp bu ñu tuddee sunu yaay soxna Maam Mbàkke sunu yaay soxna Fat bint Puy ak sunu yaay soxna Liika Mbeng ca kër ga. waaye tamit toftal ci seen njaboot muy Serigne Galas Mbàkke si nii di taaw Sëriñ Abdou Karim waaye toftal ci bàjjen soxna May di taaw Sëriñ Abdou Karim Mbàkke bu jigéen ak ñoom ñëpp seen rek Serigne bi mi ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne kile sant Cheikh Abdou Karim Mbàkke Sëriñ Fallu waaye war war naa mën a nekk ndax bu ko Sëriñ Abdou Karim Mbàkke juree ak soxna Asfaal soxna Asfaal doon jàmbaar ju baax joo xam ne ni ànd naag sëñ Abdou kërim ba wuyu ji sëñ Fallou waaye laa rëy ba fi amul sikk mu doon ko sëñ Abdou Karim Mbacke gërëm doon ko njabootu sëñ Abdou Karim Mbacke bàyyi xel kon bu amee doom ju mel nii ak sëñ Abdou Karim ñu tuddee ko Alaaji Baara mu dellusiwaat fii di sant sëñ Abdou Karim Mbacke war naa mën a nekk waaye kat kenn ku nekk lan la defal bu kawee sa njot sañ ngaa mën a sant li la sëñ Abdou Karim Mbacke defal nag boo lëj njabootu Serigne Touba boo lëj njabootu Alaaji Fallou Mbacke kon am nga droit sant ko moom moom nag mi ngi woo ñëpp nag di woo tamit mbooleem waa fédération de daayira Makarim Akhlakh ki ci bopp bi di président Mamadou Seck ki ci topp di vice président Serigne Touba Sène Serigne Ngagne Gueye secrétaire général waaye jëwriñ Abdou Ndaw di jëwriñ mbooleem bay Fall yëpp nag dafa laaj suñu yaay soxna Ndeye Gueye mi nga xam ne mbooleem soxna fédération bi yëpp moom mooy jiit ki waaye tamit ak kuréelu mag yi nga xam ne ñoo soq fédération bi muy kuréelu Pakatas jëwriñ Babacar Niang jiitu ko Omar Diagne ak mbooleem dongo yëpp ak kuréel BMD jëwriñ Lam Fall jiitu ko ak mboolem waa BMD gépp ak kuréel jëf jël jëwrin murid bay jiitu ko ak mboolem waa jëf jël gépp waaye tamit ak njaboot gi nga xam ne ñoo nekk fii Thiès doon njabootu Cheikh Abdou Karim Mbacké mu Sëriñ Fallu te Serigne Moussa Niang Moussa Dieng jiite ko ak Soxna Daba Ndiaye ñoo ñu ngi leen di woo ñëpp ak mbooleem njabootu Serigne Touba gii fi nekk fi Thiès te moom Alaaji Baara kenn ku nekk ci njabootu Serigne tubaa gi dem na ba këram ak ki nga xam ne moo fi nekkaloon Serigne Touba muy Serigne Saliou ture yàlla na suñu borom yéesal yërmande ci moom moo bokk na ci niñ tuddee bis bi ñu ngi ko yëgal ak njabootam ak njabootu gi nga xam ne ñooy waa kër maam Cheikh Raye Fall gi nga xam ne ñoo nekk fii ak mboolem njabootu Serigne Touba gi fi nekk yëpp ñu ngi leen yëgal bis bi bis bi nag ak mboolem waa kuréel xasida bokk ci biir njabootu Serigne Abdou Karim ki te Serigne Souleymane Ndiaye jiite ko ñoo ngi ci woo ñëpp na bàyyi ñu kenn bis bi nag buñ sañoon incha allah rabbi duñ ci jublu li Serigne Touba waxoon rek ci jës bu temps yi moo bi sunnati yaquud naa lil jannati mooy ñu dundal ko ci sunna mooy jàng alquran jàng xasida waxtaane mboolem gaa ñu baax ñi ndax nee nan fa inna zikrul fa inna zikru eh, eh, saalixiina tanzilu rahma mboolem fu ñu waxtaane mboolem gaa yi baax yi suñu borom dafa wàcc yërmande kon waxtaane yàlla waxtaane yonent bi waxtaane Serigne Touba waxtaane Serigne Fallou waxtaane si Abdou Karim Mbacké waxtaane baax baaxu moom Mamadou Lamine mi kon loolu la ñuy woo mbokk taalibe yi su ko defee le 23 le 22 am na journée d'orsan ak mbooleem xeeti ndimbal yi ñu def incha allah ñu koy defal suñu xëyee ci bis bi di le 23 daañu jàng alxuraan bu ñu xëyee daanu jàng xasida yi durskat na fi jàngkati xasida yi daje fi ñu bokk waxtaane Serigne Fallou sant Serigne Fallou bégee ba waxtu ñaan jot Serigne bi yeeyu mboolem yëpp ñu ngi ci woo waa Sénégal gépp bàyyi ñu kenn mboolem région yi ci Sénégal yëpp ñu ngi leen ci woo di ñaan ngeen ñaanal suñu waa ji suñu jàmbaar ji muy alaaji mu leen baara mu yàgg fi tànd ak wér ak mbooleem njaboot gépp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillah inni waliyallah jërëjëfee sëriñ Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk diwaan taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax leen siyaar di jiital si nuyoo bi ak siyaar bi suñu sang suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Mawlawine Baara moom Cheikh Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fallou ñu ngi jël kàddu nag si turu suñu jëwriñu kuréel muy diwaanu Shahaadat Daarayni xam ne moo di jëwriñ Bamba kennal di woote si bis bi ñu ko suñu jëwriñ yu baax yi defee rek ah, kàddu yi jot tajaara mat tajaaraat lépp mate na ah, di tàmbali woote bi rek si mbooleem diwaanu Shahaadat Daarayni mi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Mouhamed Lamine Baar mu doon seen jëwriñ si liggéeyu sëñ Abdou Karim Mbacke mii nga xam moom lañ yaakaar di si woo mbooleem góor yàlla bu bu bootu si kuréel gi di wax ne bis bi suñu bis suñu bis la di woote itam si mbooleem soxna yi di jaarale woote bi si seen jëwriñ muy soxna mama Karim di woo mbooleem yaay daara yi na nga xam ne ñoo ne si diwaan bi suñ si limee ku si mel ne soxna buri mu féete ca Ngane lim ci ku si mel ne soxna aji mu féete ca Daara Jolof soxna Anta Grand Médine soxna Ndeye ak saa yëpp mbooleem soxna yëpp rek ñu ngi leen si woo di woo mbooleem mbokku taalib bi nga xamante ni sa liggéey mu ngi bootu si makaarimal axlaa bi nga xamante ni moom la Cheikh Abdou Karim Mbacke woote ngir di dimbalee ko jaam ñi mbooleem kuy dégg kàddu gi rek di am mbokku taalibe te yaakaar Cheikh Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fallou ñu ngi lay woo si bis bi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah barkeb sëñ Abdou Karim Mbacke ibnu Serigne Falilou jërëjëfati sëñ kër Karim Mbacke ibnu Serigne Falilou noo ngi nuyu mbooloo yi di leen ziare di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di rafetlu bu baax kàddu yi fi jot a jib yëpp kàddu yëpp kàddu yi tawféex la bis bi moom dañuy wax ni taaru na ba noppi di ñaanal jëmm ji nga xamante ni moo koy wootee di Serigne Mouhamadou Lamine Bara yal na yàlla gën a guddal fanam gën koo may wér ak kattan ci darajey sëñ Touba ba bis bii nga xamante ni mi ngi koy woote ci ndigalu sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou yàlla defal ko ci ndam lu kawe njot ci barke xaside yi comme ni ñu wootee woote bi rek mbooleem fu waay ne woote bi maanaam mooy sa yëgle mooy ak woote mooy mooy sa lépp ngir nga teew ci bis bi bis bi nag bàyyi nañ ci xel bàyyi xel goo xam ni ñor nañu ñorin goo xam ni ginnaaw bu yàlla dogalee ba ñëpp teew ci bis bi dina la 23 ñu ngi koy waajal waajin bu am solo bëgg nañ bu ñu xëyee ñu dugg ci xel ci kaamilu alxuraan yi nekk ceeg moom ba ba ba ba tisbaar bu ñu doon bu noppee ci kaamil alxuraan yi xasida yi bu tisbaar jotee bëgg nañ dugg ci biir biir biir gan yi taral leen bernde leen yaatal jox leen ñu xewlu bu ñu noppee ba tàkkusaan ñu dellusiwaat ci cérémonie bi bu boobaa nag bépp njabootu sëñ Abdou Karim Mbàkke mu sëñ Fallu ak mboolem fu waay nekk waa Ndakaaru waa Thiès waa tuuba waa Tamba waa Matam fépp fu waay ne ñoo ngi lay woo ci bis bi nga teew ci ñu sant le Serigne Touba Serigne Baara ñu sant le ko Serigne Touba bisam bu màgg bii ñoo ngi ciy woo murit yëpp ñu teew ci ngir jëmmi Serigne Touba di ñaan lépp luñ ci def rek yàlla na dëppoo ngërëmal Serigne Touba ci barke xaside yi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall. bisimilah rahmaani rahiim jërëjëf Serigne Touba. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu rabbi siraahi sadri wa yasri amri. Wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli au nom de l'alpha et l'oméga Dieu tout puissant Allah le tout puissant ñi ngi koy sant bu baax di sant Serigne Touba Mbacke Khadim Rasoul jërëjëfati Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq tey nag kàddu gi ñu yëkkati dañ ko yëkkati ci ku baax dañ ko yëkkati ci doomu wàlliw dañ ko yëkkati ci leeru ko nit ku baax muy moo Mahmoudou Lamine Baara mii toog sama ginnaaw ibnu Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq ibnu Serigne Fallou Mbacke. waaye nag bés bi nu jëm bu ma nee sax bés yi nu jëm di deux ak le 23 décembre bésu cees la bésu Sénégal la bésu diaspora bi la ñu ci woo ki nga xamante ni moo fi toogal le président de la monsieur Macky Sall ki nga xamante ni mooy le gouverneur de ces Thiès Omar du Balde mi nga xamante ni moo fi toogal l' administration ñu ngi lay woo ci bés bi ñu ngi woo monsieur le maire de la ville de ces bi nga xamante ni moo yor la première magistrature de cette ville monsieur Babacar Diop di woo les trois maires des trois communes la commune Thiès Est di woo la commune Thiès Ouest di woo aussi la commune Thiès Nord di leen xamal ni bés bi ñu jëm bésu lislaam la bés bi nu jëm bésu barkeelu la bés bi ñu jëm bésu ñaan la bés la boo xamante ni ku bëgg a baax ku bëgg a barkeelu ku bëgg a bokk ci may Serigne tubaay yi bëgg naa nga teew ci ndax boo ci teewoo sa yaakaar du fi tase bës boobu nag ñu ngi woo le préfet de la région de Thiès ñu ngi woo les préfets de département ñu ngi woo les préfets de commune d' arrondissement di woo kilifa diine yi di woo kilifa aada yi di woo association yi di woo syndicat yi bëgg na ñëpp ñëw teew ci bës bi nga xamante ni El Hadj du Lamine Bara mii toog ibnu Serigne Abdou Mbacke Serigne Abdou Karim Mbacke moo ko woote ñun nag kenn du ñu ci jiitu artistes yi Mbacke ña nga sa wet Mbacke consommateurs yi ñi ngi sa Mbàkke waykat yaa ngi sawet Mbàkke ñi bëgg Serigne Touba ñi ngi sawet murit saadixi ñi ngi ñaan topp sawet Mbàkke ñi ngi lay ñaan bës boobu mun xam na ne loo dogu na yàlla nangu ko mbake loo daggu sa maam ja nangu ko ñi ngi lay ñaan mu nekk bés boo xamante ne ku fi toog ku fi yegg si sa tànk yegg si fi yàlla na sa ajo faju mbake mën nga ko yàlla nga ko def ci barke Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Mountakha Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu te yàlla na fi yàgg lool te sëriñ abu Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér Cheikh Abdou Karim yàlla na fi yàgg lool te wér sëñ Cheikh Touré ibnu sëriñ Saliou Touré yàlla na fi yàgg lool te sëriñ Baara Mbacke yàlla na fi yàgg lool te maanaam ci ndigalu Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikh Abdou Karim Mbacke maam kàddu yëgle la ñuy tas ci mbooloo mi nga xam ni ñoo ñëw wàcc Cees te war a jóge fépp ci réew mi ba ci diaspora bi maanaam di yëgal cant Cheikh sant Cheikh Abdou Karim Mbacke yi nga xam ni mi ngi amee fii le 22 ak le 23 en face li Malick Sy le 22 bi nag daanaka sëñ Mouhamadou Lamine Bara ibnu Cheikh Abdou Karim Mbacke ngir yaatal li nga xam ni makaarimal axlaa bi nga xam ni Cheikh Abdou Karim Mbacke moom la woote ak li nga xam ni dafa dëppook jamono muy le service à la communauté bi nga xam ni maam nasaraan yeeg ñëpp tey jamono ji fi mu toll ñu ngi koy def mooy nan ngay def ba amal njariñ sa gox. ci boobu nag mi ngi ciy woote li nga xam ni moom mooy don de sang ñu ànd ci ak waa banque de sang bi nga xam ne ñoo nekk hôpital régional de Thiès. ak di ci woo bépp association ak acteur sociaux yi nga xam ni ñoo nekk fii ci biir Thiès di ci woo ñëpp ñi nga xam tamit fii la ñuy yeewoo. di ci woo waa sa Malick Sy bi nga xam ni ñun ñoo jàkkaarloo di ci woo bépp ndaw bi nga xam tamit bëgg la nga œuvrer pour Dieu à travers les hommes mooy dimbali nit ñi dimba jaamu yàlla ci nit ñi maanaam di ci woo ñëpp. benn bis topp nag mooy don de lunette bi nga xam ni ñi ngi koy defak ak waa lunetterie Fadlullahi bi nga xam ni moom sëñ Fallou képp lay noyee moom tamit muy doon ndaw loo xam ni maanaam promoteur la ak entrepreneur bi nga xam ni ci loolu lay yëngu. moom mooy ñëw def don de lunette ngir mag ñi képp ku dëkk fii ñu yëgal ko ko rek boo ñëwee moom dina la seet defal la lépp li nga xam ni moo jëm ci wàllu bët. beneen bi si topp nag mooy caravane bi nga xam ni moom la euh, taalibe sëñ Mouhamadou Lamine Baara yi nga xam ni ñoo fi nekk ak nga xam ne ñoom ñooy sympathisant yëpp. moom la ñu war a def ci ngoon gi donc di ci woo waa Thiès yëpp di ci woo jeunes yi di ci woo acteurs yi di ci woo ñëpp jërëjëf bismillah ci barkeb Seyxi Fadilu mi buur yàlla dolli ñoo ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb Seyxi Fadilu mi buur yàlla dolli